jàkkaarloo mooy Ndamali ñu jàkkaarloo ki nga xamante ne mooy Bulldozer Bulldozer day wàcc tolloog moom brise de mer Bulldozer brise de mer mooy grand combat ci grand combat bi Bulldozer Brise de Mer Bulldozer Brise de ak Ndiol dafa bëgg mu siggi moom Brise de Mer Bulldozer sigi Bulldozer ñëw na Brise de Mer Bulldozer ah way loolu la bëgg mu sigi mu daw jël ko xanaa bu ñu jàppante mu jeex diggante Ndamala ak Ndiol Bulldozer Brise de Mer Brise de Mer Bulldozer Ligne de Sor mooy féete suñu càmmoñ jiital droit bi jàppante nañu moom Ligne de Sor ah oui la ko génnee moom Brise de bi énervé na ko Bulldozer a ngi ci kawam. daw na ko jël wëlbati ko daan na ko daan na ko daan na ko ar bi nee na jeex na ar bi nee na jeex na yaay bu baax a baax a baax man nga ñu ñëwal ci combat bi waaye sama yaay ma nga ñëw bu baax a baax combat ni nii kese nga mënoon demee waaw nga laal waxoon parce que nga ngaa gëm lamba à chaque man nii nga mel ni ma nekkee si lamba du confiance du daal sama gëm-gëm ngaa demee yàlla na yàlla doon sudu ga sant yàlla ba ñu doon gerte ñu jëm si a yi nga jëm si gars yi nga jëm maa ngi déglu nag Abdou Lahad maa ngi déglu baax a baax xam nga maa ngi sant bu baax a baax waaye yëmbal fay waa Marika ama seen fay